gisee décor bi nag vous avez une idée de la chose on est à 197 kilomètres de Dakar donc foofu nag bu ñu ko waxee mu nekk Kaolack Kaolack nag comme ni ñu koy xamee rek euh, de par sa dimension religieuse ku wax Kaolack wax ki nga xamante ne mooy Cheikh al Islam mu wax Baye ñas donc moo waraloon nag tey ñu ñëw fii daal di sees si benn doomu Kaolack boo xam ne muy def lu am solo ci dëkk bi donc du ma ci xuus nag li ñuy def mooy. dañuy ànd ñu daal di suñu invité à tout suite. alors Cissy. Yawa. bien. comment ça va bien ça va bien. bienvenue. Euh, président Cissé c'est un exemplaire jëkkër bu baax la qui est dans tout ce qu'il fait. moom nag amul beneen option amul beneen xalaat bu dul liggéey Baye Ciss liggéey rek la gëm. ndeyam laa de samay morom mi mag dañuy ñëw fii di ma laaj. waaye suma tànk bi du génn buntu kër lu ma soxla rek mu ngi ko fa lu ma soxla jabaram ma ko teg lu ma xotti lu ma ñawlu ñu yor ma ñoom loolu laa xam ci moom fulla ak fayda. soo bëggee suuf duñ la jox soo buggee autorisation de construire kenn la ko jox. dañ lay gal dañ lay galgal certains yoo xam ne nii ñoo yor dëkk bi moo yor dëkk bi par exemple le maire Mariama Sarr moom mooy muy joxe autorisation de construire. Mm. donc pour mu jox la ko c' est un problème. waaye nam ñeme woon temps boobu moom rek moo ko ñeme woon. déedéet waaw mu nekkoon ku xarañ. Ah. ba léegi hmm. mu nekk ku xareñ